chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Dakar Media TV comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen toppal information yi en temps réel ñu dooree rek yéenekaay ak ki nga xamante ni moom mooy son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ginnaaw démb ci jeudi bi nag moom moo présidé la cérémonie de levée des couleurs du 74e anniversaire de l'indépendance du euh, euh, Sénégal gis nañ nag démb euh, maanaam 4 avril bi ni nga xamante ni noonu la. mais dañ ko euh, féete en toute euh, discrétion drapeau yi donc la ñu euh, yëkkati ñu desandi ba tey ci son excellence la président Bassirou Diomaye Faye bu ñu sukkandikoo ba tey ci information yi nga xamante ni journaliste le quotidien bi di ma Madiambal Diagne daal dina koy génnee démb mu ngi xamal ni daal moom Bassirou Diomaye Faye démb daal dinay annulé par décret du 3 avril 2024 décision yi nga xamante ni rek moom président Macky Sall daf ko fi jëloon ci réunion bi nga xamante ni daf ko amaloon nag conseil supérieur de la magistrature en date du mars 2024 moom président Macky Sall ci boppam nommé woon na première euh, président de la euh, cour euh, suprême gisoon nañ polémique yi nga xamante ne amoon na ci ba Guy Marie Sagna honorable dégg ngeen nga kàddu yi nga xamante ni waxoon na ko ci président cour suprême boobu que dossier yi nga xamante ni Ousmane Sonko amoon na ko moom moo doon nekk koo xamante ni moom moo ci doon opposé wu ba tax na rek moom président Diomaye fay daal dina koy wàccee ak membre du pôle financier bépp ñu ñëw aussi euh, ci euh, retard bi nga xamante ni rek am na ko ci euh, maanaam former nouveau gouvernement ci seen magistère moom premier ministre bi di Ousmane Sonko ginnaaw biñ ko tabbee annoncé woon na lu yàggul dara dina génne liste bi maanaam ñu xam kan ak kan moom mooy gouverne ci seen magistère waaye daal depuis bañ ko defee annonce ba tey bu baax léegi nit ñi ñu ngi toog di xaar mais gisuñu lenn ñu bari sax ñu ngi jox. ay information euh, que nii rek euh, maanaam dafa am guerre de positionnement au sein euh, de Pastef maanaam ak coalition bi nga xamante ni rek ñoom moom la ñu demee ku nekk rek dangaa bëgg a dugg ci gouvernement bi mais déggoon nañ tam Ousmane Sonko euh, kàddu yi nga xamante ni euh, yëkkati woon na ko ci seen clôture bi fële nga xam ni moom mooy mbuur mi ngi doon wax naan affaire bi du gato bu ñuy séddoo du loo xamante ni daal danga naan maa maa ngi fi woon euh, dama ciy am sama wàllu par force ñoom dañuy maanaam gagné pour defal li nga xam ni moom mooy Sénégal ba tax na rek information yi nga xamante ni jot nañ ko ñu ñuy xamal retard boobu li ko waral du lenn lu dul moom Ousmane Sonko ministre du Sénégal actuellement dafa nekk di def enquête test de moralité ci la nekk actuellement di def maanaam daal nee na képp koo xamante ni day bokk ci gouvernement wam da ngay nekk koo xamante ni da ngay digne de confiance ba noppi nga am ay loxo yu set wicc loolu mooy tax nga mun cee euh, euh, bokk loolu daal la ñu mujjee jot comme information waaye ba tey ji euh, ñuy wax ak yéen daal jotaguñ benn information bu ñeel kañ la ñuy génnee liste gouvernement bu yees bi ndax ñu mën a tàmbali li nga xam ne rek moom mooy liggéey bi ndax ba ñu faloo ak léegi bu xoolee am na 48 heures wala 72 yoo xamante ni am na mbir yoo xamante ni nit ñu leen ci xaar rawatina euh, askan bi te dafa am loo xamante ni dafa nekk ay euh, urgence yoo xamante ni dañ ko war a régleel sénégalais yi lu ci mel ni dund bu cher bi wàllum location bi ak li nga xamante ni rek moom mooy taux de chômage u euh, jeunesse bi actuellement daal ñoom la ñuy déglu ba xam rek fii tey wala suba ba xam dinañ mën a génnee li nga xam ne rek moom mooy liste bi ñu ñëw aussi ci Lat Diop mi fi nekkoon Euh, ministre des sports ñu ñuy jot démb ci ay information euh, que ni rek dafa bëggoon dem fële ca euh, umra ji waaye nag dañ ko intercepté fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor daal di koy wax ni mënoo génn ci territoire national bi lu ne mel nag moom Lat Diop daal dina koy demantir ba mu set wecc téléphone nag lañ ko jot mu daal di koy xamle nee na mu ngi këram toog kenn intercepté wu ko ci aéroport ba maanaam daal demantir na boobule information ba mu set wecc moom Lat Diop. ñu ñëw aussi euh, ci Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne nag euh, di leader du rassemblement pour la vérité ànd ci dëgg euh, moom nag démb ñëw na ci post première ministre bu Ousmane Sonko ginnaaw rek euh, biñ ko euh, tabbee moom nag li mu xamle lenn la ndax Pastef dafa am charte boo xamante ni dañ ko tëddaloon maanaam képp koo xamante ni nii munoo nekk benn nit am ñaari fonction maanaam cumul de fonction loolu bokkoon na ci seen ay combat waaye nag moom indi na ci ay leeral yoo xamante ni rek dal na xel moom Cheikh Omar Diagne lim ci xamle nag lenn képp la nee ak xam mu xam Ousmane euh, Sonko xam na ne Ousmane Sonko du def cumul de euh, mandat dina démissionner euh, ci post de maire bu nga xamante ni rek moom la ko waa Ziguinchor dénk daal di wëyal li nga xam ni moom mooy liggéey bi ko président Diomaye fay dénk en tant première ministre. àdduna itam ci li nga xamante ni rek moom mooy yéexaay bi nga xamante ni ñëpp a ngi koy wax ci seen gouvernement bi boobaak léegi ñu toog di xaar moom Cheikh Omar Diagne nag lenn la ci daal di yëkkati comme ay kàddu nee na li nga xam ni moom moo waral lenn rek lu dul euh, euh, benn euh, signe boo xamante ni rek c'est mutueuse et réfléchie maanaam daal gouvernement la boo xamante ni bëgguñu ko tabb ci yàkkamti ba tax na rek bëgguñu associer aussi tam maanaam mbir yi ak politique dañuy xool l'homme qu'il à la place qu'il faut moo tax nag mbir mi yàgg bu nu xoolee mbir yi nu mu demee ak xam bi mu xam Ousmane Sonko xam na ni képp koo xamante ni rek jël na la teg la ci gouvernement bi rek day fekk yow nga am compétence yi tax rek mu mun laa jox boobu les postes waaye tañ bu ñu sukkandikoo ba tey euh, ci opposition bi euh, ku ci mel ni aadama Fall moom nag mu ngi woy ba tey rek ne moom dafa taxaw taxawaayu euh, opposant démb nag mu ngi xamal ni rek moom président Diomaye Faye ci ay waxam nee na dafa signé décret pour le compte de son cabinet te ki fa teg du kenn rek ku dul Ousseynou Ly mi nga xamante ni rek citoyen lañ ko gën a xamee moom du bokk ci membre du gouvernement bi loolu daal di xam ne moom Adama Fall nee na rek poste bi ñu koy jox moom mooy euh, poste coordonnateur de la cellule Euh, digital euh, de la présidence moom ak ki nga xam ni rek moom mooy Benteleb Sow moom tamit day nekk membre de la cellule de communication de la présidence ci ay waxam ba tey moom euh, Adama Fall nee na poste boobu pour nga am ko faaw nga am hiérarchie maanaam faaw nga am maîtrise au moins nga soog a mën a am yenn poste yooyu nee na nag moom mi ngi leen di xaar maanaam daal moom opposition bi opposition bu nar a neex la moom Adama Fall. ñu desandi ba tey ci li nga xam ne rek moom mooy information yi ñu ngi xamal xamal itam euh, euh, Mimi Touré euh, ba tey rek moom dafa préféré bañ a bokk ci nouveau gouvernement bi décision boobu daal la jël selon nag interprétation yi nga xamante ni ku ci nekk rek mu ngi ci yëy di ci yàb bi ñu ngi naan est-ce que Mimi Touré bëggul woon maanaam post de premier ministre moo tax mu bëgg a gedd li nga xamante ni rek moom mooy gouvernement bi en tout cas daal loolu la ñu jotagum comme information di xaarandi rek liste bi ba xam rek dina ci bokkam déet ñu ñëw aussi euh, ci Serigne Saliou euh, Guèye di journaliste euh, nekk chroniqueur aussi foofu nga xamante ni rek moom mooy Sen TV moom Serigne Saliou nag génn démb daal di étaler koreeram ci nouveau gouvernement bi wala coalition Diomaye président ndax nee na seen cérémonie d'investiture bi ñu amaloon fële ca Diamniadio moom mënu ko kole ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy régime bi fi jógee ndax régime boobu mënu mësuñoo am maanaam cérémonie ba invité ko ndax ñoo jàppoon euh, tëj ko waaye régime bi nga xamante ni rek moom mooy euh, coalition Diomaye président ak Pastef la ko wër ñoom ci seen bopp amoon nañu ay loo carton d'invitation euh, maanaam invité ay journalistes mais moom kenn invité wu ko te boo gisee lu ni mel mu wax ko parce que nag gis na ay journalistes yu ñu invité yoo xamante ni moom la lañ ko ëppalee lim ci teg rek moom Serigne Saliou Gueye daal Euh, moom mooy euh, journaliste bi nga xamante ni daf ko euh, yebaloon foofu nga xam ni moom mooy ca jam ñaajo pour mu couvrir événement boobu pour ñu am lu ñu mën a bind waa Pastef dañ ko wax ne ko carrément boo ñëwee ba ci porte bi boo egsee boo ñu woowee ñun dinañ ñëw jël si la mais journaliste am bi dafa dem ba foofu di leen woo seen portable fay dem na sax ba journaliste bi di négocier pour dugg sans accréditation mais ba mu ko woowee moom moo ko ne carrément ñibbisil fa humilier sa bopp comme nanguñu la bàyyi nga dugg rek euh, euh, ñibbisil mu nekk nag loo xamante ni nag moom Serigne Saliou Gueye ñaawlu na ko bu baax a baax ndax nee na journaliste am boobu moom bokkoon na ci ñu doon couvrir euh, seen campagne yi ci ci yi ñu jógee mu nekk nag loo xamante ni daal naqari na ko loolu gis nañ aussi tamit réaction yi nga xamante ni patriotes yi am nañ ko travers l' internet ci bëri sax ñu ngi koy baalu àq ndax ñu ngi naan Serigne Saliou Gueye moom mooy projet bi bu mu méttee bu kenn sañu tàmbalee wax moom Serigne Saliou Gueye bokkoon na ci ñoo xamante ni dañ doon défendre bu baax a baax euh, parti bi di euh, Pastef ci injustice ak yu bëree bëri yoo xamante ni daal dañ ko doon teg ci seen euh, ndodd ba tax na rek ñoom nee nañu daal biir na leen lii erreur la te yaakaar naa ni dootul amati ci li nga xamante ni rek moom mooy Serigne Saliou Gueye ñu ñëw aussi ci beneen information indemnité d'ancien président le Sénégal va payer à Macky Sall 5 millions de francs fa par mois soit plus de 100 millions de francs CFA par an loolu daal la ñu daal di euh, xamal moom président Macky Sall daal préparé na départam bu euh, baax a baax ndax rek euh, ñu ngi xamal ni day bénéficier wu ci état maanaam indemnisation maanaam cinq 5 millions yoo xamante ni par mois dañ ko koy fay buñ ko xaymaa day doon 100 millions de francs CFA par an ak ay faveur yoo xamante ni rek état bu Sénégal ñoom ñoo koy jël en charge sur sa personnes Euh, ñu ngi xamal ni daal euh, décret boobu moom moo ko euh, signé woon le 17 janvier 2013 lu ni mel nag maanaam daf ko attribué woon aussi ancien chef d'état yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jugewaat ñoo fi juge woon ku ci mel ni Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñoom itam même traitement mensuel boobu noonu la ñu am chaque fin du mois loolu daal la ñu jot comme ay information ni ki démb ñu tëjee ak Anthony Blinken mu daal di réa réaffirmer euh, soutien bi nga xamante ni rek États-Unis daf koy am ak peuple euh, sénégalais bi moom secrétaire d'État euh, américain bi benn post nag la ko daal di def ci page Facebook am nee na nag dina soutenir peuple sénégalais ci engagement durable en faveur des traditions démocratiques du Sénégal mu profité wu nag démb ci 4 avril bi daal di réaffirmer soutien bi nga xamante ni daal daf koy apporter peuple sénégalais gene gale bi moom daal loolu la daal di euh, xamle ndax nee na nag ay liens yu profond la entre la entre le Sénégal les États-Unis lii lañ leen indi loon ami chers euh, fidèles internautes ci actualité yi nga xamante ne dañ ko daal di tënk di leen jox rek di daje incha allahu rabbi très prochainement ak yeneen i actualité d'ici la portez-vous bien restez à suivre nos programmes sur Dakar Media TV merci